نمي جيري لي سلمات سي عليه الصلاه والسلام دي نيان سونو بوروم مو خيول سي كاو يونتي اي صحابام رضوان الله على الصحابه اجمعين نمي نيان سونو بوروم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يتقبل منا انه هو السميع العليم وان يتوب علينا انه هو التواب الرحيم kon dellu si waat nañ ci woon keppaaru xam-xam ci bindab tafsir alquran alazim fi hada alshahr almubarak wa fi ashriha alawaxir dellu si waat nañ ci tafsiru alquran alazim ci weer wu màgg wi di weeru koor ci fukk yu mujj yi ni moo gën a barkeel ci weeru koor borom bi defaloon nañu tawfiq ba ñu jeexal saar wi di suratul hadid tey bi iznillahi subhana ñu war a jël suratul mujadila suratul mujadila ci saar yi wàcc madina la bokk mujadila mujadala kilahuma sahih mujaadila mujaadala lu ñuy wax suuratul mujaadila suuratul mujaadala suuratu qad samia yooyu benn bu ci nekk wér na kon saar wi mooy suuratul mujaadila wala mujaadala wala qad samia yooyu benn bu ci nekk ay boromi xam-xam wax nañ ko benn bu ci nekk am na ñoo xam ne noona lañ koy tuddee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 والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون منكم من نساء والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد قل تعوي مي سورة المجادلة خمني weccantey baat wala mujaadila jëm ca ndaw sa saar wi min as-suwaril madaniyat ci saar yi wàcc madina la bokk saar yi wàcc madina ak saar yi wàcc màkka ku leen seetlu di nga gis ni am na lu leen di wuutale ay yëf yu bari bokk na ci yi leen di wuutale mooy saar yi wàcc madina njàngaleem ahkaam moo ci yi tereeta lu jëm ci mbirum pas-pas mbirum xam kan mooy sunu boroom tawxidul uluhiya tawxidul rububiya tawxidul asmaai wa sifaat ak wane ni sunu boroom kenn waru koo bokkaale ak lenn yooye boo seetloo ba ci biir ci saar yi wàcc Makka la ëppee donte am na lëf ci saar yi wàcc Madina ñaareel mi mooy saar yi wàcc Madina boo seetloo li ëpp ca la muy traité mooy lu jëm ci mbirum àtte yi da xam ngeen ne lislaam bi mu ñëwee dafay fekk ay yëf yu bari te tomb bi bëgg naa ñu bàyyi ci xel li tax ñu mattee bàyyi xel mooy nun dañuy daawa waaye léeg-léeg ñu def njuumte yu rëy yoo xam ni sunu daawa day échec fekk ci ñun la li ko waral mooy ñun dañuy jiital sunu xër sunu yegsee fekk fi ay yëf yu bari daal di jàpp ni yëf yi moom mën naa gaaw daal fii jóg fii ak suba fekk mbir du demee noonu moo xam ci biir famille moo ci dëkk bi moo xam fu mën xeeti mbir yi nga xamante ni mooy am di xeeti yàqute boo fasee ni daa war a jeex fii ak suba yëgal ni di daanu jël bu rëy l'islam mbokk yi dafay ñëw fekk fi ay yëf yu bari islam dafay fekk njaayam jaam te war na ko fay jëlee waaye fas yéene wuta xëy xëy jëlee ko fi dafay fekk naanum sàngara war na ko fay jëlee fas yéene rek jëlee ko fi dafay fekk jaamum xërëm fas yéene ko fay jëlee waaye xëy xëy rek jëlee ko fi dafay fekk dafay fekk ay yëf yu bari fekk fi góor daan wax soxnaam wax ju bon te ñaaw wax ju bon te ñaaw mooy góor gu mere soxnaam ah daal di koy wax wax ju bon a bon a bon wax ja mooy su ma la na ma tee tiim yàlla naa tiim sama ndey wala boog woddee naa la sama sérub ndey wala boog sàngee naa la sama malaanu ndey xam nga yooyu wax la yoo xam daanaka ay saaga la mën nga ko tuddee aw saaka mu jeex wax yu bon yooyu nag islam fekk na ko fi xam na ni aada la ci nit ñi te ku ko def wax nga lu bon waaye ku ko defi sa jabar tas na ci jamono jooja l'islam nag ñëw wàcce saar wi ngir xew-xew bu amoon pour régler situation boobu te it asbaabu nuzul yi boo ko xoolee di nga gis yu bare bari lii la wund imaamu Ahmad nettali na ci musnad مو يتقول لنا جلت عائشة رضي الله عنها من الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات دق دق دق تنت نيالنا سنبرا من قمني أدي قم ومنا أمبكاب يرتني وعند المم يدق الله أكبر لو لم يكن لك كما أنك ميسن برا سنت نيالنا بور من قمني أدي قم منا أمبكاب يبني يب دي وعند ñu gox yu ñu nekk bokkuñu làmmiñ wu ñu nàmp bokkuñu aajo yu ñuy wax te suñu borom mu ngi dégg lépp subhanahu wa taala nee na ndaw si dafa ñëw di wax ak yonent bi di déyanteeg moom te maa ngi toog di seen pegg te man dégguma dara ca la ñuy wax yàlla wàcce saar wi ni moom dégg na la ñuy wax te moom ma nga ca kaw asamaan ya mu ne kon suñu borom bi ak déggam jot na lool wa kadalika imam al buxaari génne na xadis bi ci kitaabu tawxid ibn abi xaatim ba léegi mooy tax lañ jële ci Aïcha mu ni tabaraka alladi awaa sam'uhu kulla shay barkeel na moom borom mi nga xam ni ak déggam day dafa fës ba matale mboolem li nga xam ni mooy yëpp ndax man maa ngi dégg ndaw si di xawlata binti Saalaba lek léeg ma dégg ay baat ci lam wax léeg-léeg am lu ma rëcc ndax da doon dee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal bokk na ca la ma ca dégg mooy doon na wax bi naan ko nguur akala maal bi ma nekkee jànq amoon naa amoon naa tuut moo ko lekk wa afna shabaab yi ab jànq laa woon bu rafet sama ndaw moo ko yóbbu wa nasartu lahu ma fi batni li ma jotoon a war ëmb ci sama biir yépp jural naa ko ko ci ay doom hatta ida kaburat sinni bi ma bàyyee ba ma magal wan qataa waladi sama njur jeex ظهر مني مو واخ واخ دي اللهم يا يالا اني اسكو اليك يا ولاي جامات يا ولاي ديس بروبليم بي يا ولا بوغي نغا مكو نينا فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الايه فريول رك جبريل دال دي اندي ايه جيغا خامني موي قد سمع الله قول التي في زوجها قول التي تجادلك في زوجها ذكر مو نيكون اوس ابن الصامت أوس ابن الصامت ndawsiri xawlata binti saalaba kon sunu borom tàmbali saar wi ci qad sami allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha qad ci adawaat yi nga xam ni dafa fees ci alquran te it nag am na lu muy wund qad jaakum min allahi kitabun nurun wa kitabun mubin ها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد نعلم أنه أنهم أنه يحزن كما يقولون ولقد نعلم ولقد خلقنا السماوات والأرض لقد خلقنا الإنسان في كبد أكيد منه دخل قد بينه للمؤنك لام القسم ها لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم قد دا فا موك سي بات ييغا خامني اي لغي يو ووتي لاي لغي ني مال دانيو قد للتحقيق واو لول امنا واي قد تحقيق دا موتاخ كو جوف تحقيق موي دغال لي ويرتي وور قد سامع لي ويرتي وور موي يالا موم دغنا موم كون فوفو دا فا نيو في موم للتحقيق موكو جاخ تاخ جوك دا فا نيو بور سخال دي فيرنديل mbir moo xamante ni am na ba noppi léeg-léeg dana ñëw ngir yeneen liggéey tax koo jóg nga xam ne borom xam-xam yi nga xam ne seen màcc seen xam-xam dafa màcc jëm ci alquran ak tafsiram ak yu ni mel dañuy wax ci xat ay barab yu wuute ci alquran yoo xam ne benn bu ci nekk la ko tax a jóg ak morom ma bokkut kon fii bokk na ci li ko tax a jóg mooy day firndeel ak a dëgëral ak a wéral léeg-léeg mu ñëw ànd ak laam ju tudd laamul xasam xam nga bu giñee ba noppi daal ni lu wér mooy lii rek mooy dëgg moom kon qad samia dëgg-dëgg li wér te mooy dégg na allahu moom yàlla qawla allati waxi ndaw si nga xam ni tujaadiluka mu ngi daggante ak yow di joxalanteeg yow ay baat fi zawjiha ci mbirum jëkkëram wa ndaw saa ngi jàmbat di diis ay jafeñ-jafeñam ilallahi ci borom bi subhanahu wa taala wallahu yàlla moom yasmau dégg na taxaawurakuma jokkalantey baat yi inna allaha ndax sa borom yàlla kat samiun aji dégg la ak dégg waaye basir kuy gis la te jot ab gis ndaw dafa ñëw ci yonente bi sallallahu di jàmbat waaye nag problème yi sunu borom la ko doon jàmbat ndax sunu borom waxul wa tastaki ila rasulillahi waaye wa tastaki ila allah li tax mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que moo fi toogal sunu borom di jàngale atte yi te yar nit ñi kon dëgg la nit mën naa jóg problème yi mu bàyyi koog sunu borom ba noppi waaye kalaame fa mu war a kalaame loolu tamit ngeen bàyyi ci xel dàppante wu teg wàccilu ci sunu borom ndax yàlla seedeel na ndaw si ni tastaki ila allah ti alquran wane ne ndaw si daa ñëwoon ci yenn sa di ko jàmbat kon nekk nit ki mën naa jug dem waxi problème am kam yaakaar ni mën na ko ko wax te fekk jàmbat taxut te fekk ñàkk gëm dogal suñu borom taxut te fekk ñàkk a wér suñu borom taxut waaye nag lu nekk dafa am aw yoon dafa am ay sabab suñu borom ni li wér te wóor mooy yàlla moom dégg na moom dégg na ko moom xawla allati waxi ndaw si nga xam ni tujaadiluka mi ngi werante ak yow di dàgganteeg yow fii zawjiha ci mbirum jëkkër ji wa tastaki ma ngay jàmbat ak ay jafeñ-jafeñam ilallahi ci yàlla wallahu yasmau mi ngi dégg taxaawurakuma seen joxalante baat yi inna allaha sa borom yàlla sami aji dégg la te jot ak dégg basir aji gis la te gis borom subhanahu wa gisam mooy fu waay mën a nekk ci lëndami gi gi lëndami jaww ji lëndami jéeri ji fu waay mën a nekk ci lëndami guddi gi sunu borom mi ngi lay gis sunu borom yasmaa wa yara xoronam wu ñuul wi ci gët wu ñuul wi ci guddi gu lëndam gi ak tànkam yu sew ya fa koy teg sunu borom ma ngay xam raatale tànk ya loolu moom doomu aadama mënu koo xam moom ndax xam na ko mën naa jaar ba jàll doo gis aw tànkam doo gis ay riitam rawatina bu dee caw doj nag aw doj moom xam nga ne même boo séenee ba muy jàll doo seen jeexintali tànk ya waaye sunu borom moom doj wu ñuul wi xorondam wu ñuul wi guddi gu lëndëm gi borom baa ngi gis ak tànkam yu sew yi fan koy teg loolu doy na sëkk ci jàjj ci kenn ku ci nekk mu xoolaat boppam ñaareel bi mooy sunu borom lépp mi ngi koy dégg asirru qawlakum waxal ndànk awi jaharu waxal ca kaw innahu alimu bi zati sudur parce que li xalam ci dënd bi te génn gut yàlla xam na ko moo tax doomu aadama lu muy def mbaa mu koy wax na ci sédd boromam subhanahu wa taala gis nga nit ñi nga mën a nax bëlëb leen jàll waaye suñu borom mënoo koo nax déedéet ndax moo la sàkk ala yaalam man xalaq te it moo la gën a xam lii xalam ci sa dënd bu wuuteeg li ngay wax nit ñi yàlla moom xam na ko lii xalam ci sa xol am ak sam xel boo ko waxu tiit xam na ko li ngay wane te fekk nekkut suñu borom xam na ko jafe-jafe yi am yàlla moo la ko gën a xam benn bis benn jigéen bu ñuy wax xawlata binti saalabata dani fiya wallahi wa fi awsutn saamit unzila sadru hadihi suura giñ ci yàlla ni njal been ak suratul mujaadala ci maag sama jëkkër la wàcc nee na kuntu indahu wa kaana shaykhan kabira nee na man maa nekkoon soxnaam waaye moom góor la woon goo xamante ni mag la qad saa xuluquhu ku ñaawoon ko loolu nag ñaaw jikko moom ajiwut nekk saxaabaat nekk taabiin mbaa dëkk fii mbaa dëkk fële déedéet ñaaw jikko moom ñaaw jikko la rafet jikko rafet jikko la ku góorgóorlu say jikko rafet ku góorgóorlu say jikko ñaaw rek kon ñaaw jikko moom yàgg naa am nee na fa daxala alayya yawman fa rajaatuhu bi cheyin fa xadib benn bis mu ñaal di ñëw ci man ñuy waxante maag ba moom bay xëccoo ay baat mu mer te xam ngeen ne ku ñaaw jikko foo ko fekk day gaaw a mer ku ñaaw jikko day gaaw a mer te day mer bi atfahil asya te lu lu solo ñàkk fayda ca lay mer ku ñaaw jikko bu meree du gaaw a meddi du gaaw a bàyyi te ku ñaaw jikko foo ko fekk jéggale du ko yomb day matt ñaaw ko maanaam li ci nekk ci ay musiba dafa bari nee na mu dal di mer ni ma ante alayya ka zahri ummi yow yemale naa la ak sama ndey mooy wonte naa la sama sirab ndey mooy sayee loolu moom bu la ko arab yi mosaana wax jeex na mooy sëy ba tas na loolu la fi lislaam fekk nee na bi loolu amee nguur si daal di xaabar xaabar yi di génn mer dem ca penc ba toog fa xam naa mu dem toog ci penc ba ab diir xelam yeddu ko mu xam ne li mu def ëpp nag ñaareel bi it wax dëgg yàlla xelam xalaat nag bi xel mi xalaatee xel mi daal demaat ci ndaw si nag mu rëccu gis nga am na góor ñoo xam ni léeg-léeg dañuy xaabar xaabar yi def lu ñu def balaa mat ñaari minute ñu rëccuwaat te loolu daa bokk ci liy ñàkkal fayda góor daaw a rëccu surtout ci yu mel nii nga xamante ni ay décision ferme la laaj ah léeg-léeg nga gis ku fase jabaram coow coow li jub jub kaw ñaari fan ñetti fan rek mu commencé rëccu loolu ba nga ko loo ciy fase moo tax teey ak def ndànk ak di diisoo ak am solo waa ji xam naa xelam nekk ci bànneexu ci ndaw si mu daal di dellu si waat commencé nooyal aka neexal aka raay raayal naa ko merloo nga ma sànq boo lëggee bu ko defati ndaw si ni ko déedéet loolu taxu ñu cee génn de laal dooma ko def lu dul yonent bi daa rek la mbir ba pare góor si jëm kaw góor gi jëm kaw ndaw si jëm kaw fekk si mu ne ko sa loxo duma laal dooma jege lu dul l'islam dañoo dem ci yonent mu wax wax ji nga wax ju rëy la ndax ñoom jàppoon nañ ni ku ko mas wax sa sa sa ba tas na bi loolu amee góor daal di bërbëreeg moom xam naa bëgg ko wan ni ko may kilifa gi may borom kër kër gi waaye yàlla na fekk nga mën soxla sax xam léegi léegi nag booy jéem a jaay maa la yilif ba song ko la ma nit du sotti góor gi jéem a bërbëreeg moom ndeke ndaw see ko man ndaw si daal di koy ba wax mu daanu bi ko ndaw si ba ma xëy mu daanu ndaw si daal tijji bunt bi génn dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mi yegsee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mu toog ci peggam nee na balaa may dem aw ma sax lu ma sol nee damaa fëgg sama dëkkandoo moo ma aal mbubb ma sol loolu dalay wan ni mbokk yi mbir mi nit yàgg naa lu ci diineem ba nekk saxaaba yàlla nattoo ko ba mbub mu baax moom sol génn ci nit ñi du ko am gis nañ ko ci ay riwayat yu bari ci ay xadis yoo xam benn bu ci nekk day wane ni kam gaar daa abu yëre yum génnee gis ngeen ci xadisu kaab ba nee na keroog bañ ma ne yàlla baal na la nee na kama bisaara loolu mbub ma ma ko may mooy mbub mu baax mu ma am mel moom la am ci mbub mu baax dama dem àbb ma neen terax laa yoo ko génn kon loolu yàgg na fi mbokk yi nee bi ma yegg si ci yonent bi saa ci peggam wax ko moom dafa bon ay jikko dafa gaaw a mer dafa nangam dafa nangam lima lima lim ba yeggal yonent ni ko yaa xuwaylatu ibnu ammika sayxun kabir fattaqillaha fii yow kii nga xamante ni moom mooy xawlatu kii sa kilifa la sa jëkkër la sa doomi bàyyi la maanaam bokk ngeen ay bokk ngeen bokk ngeen i bàyyi bokk la ko bëgg a wax ah mu ne ko moom kat ak màggat la ragalal yàlla ci moom nee na maag may su ma waxee baat bi yonent bi baat waxaat baab bi fekk booba yonent sa saa salaam dañu ko man kat xaw ci lu jub lii ndax lii mooy li li ma ci yàlla xamal benn aaya wàcc gu ci ndaw si di baamtuwaat ci la ko waxee woon lekk na sama alal ji yóbbu na sama ndaw gi def na nangam def na nangam def na nangam ma indi asku ilayk yàlla maa ngi lay jàmbat mbir mi ndax sérieux na de bu yeboo nga wax ci nee na foofu rek ma di seen yonent bi di papati sallallahu alayhi wa sallam di loxo comme ni nga xam ne noonu la ko wax yu doon dikkalee léeg-léeg mu sedd guy ñu seen ko muy lox mu léeg mu ta nu mu tuddati sedd guy ñu seen ko muy lox te jamono bi muy loxo mi ngi tàng ñaq waa ngi siit sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na yonent bi daal di koy wooni ko yaa xuwaylatu xuwayla tasgiru xawla la mu ni ko qad anzala allahu fiika wa fi saaxibik yàlla fi mu ne nii wàcce na aaya ci yow ak sa borom kër muy qad sami allahu qawla allati tujaadiluka fi zawjiha digal ko nee ko na goreel jaam bu demee ndeysaan xoolal gis nga musiba kenn du ko wootal góor gi mere na ndaw si ba nee na ko woddee naa la sama sérab nday ndaw si mere na ko góor ki ba lu mu ko xamaloon ci ñaaw ji ko nettil na ko yonent bi te teewul ba léegi yërmandi jaa ngi fi parce que mooy bàyyi doomam wala tan sawul fadla baynakum gis ko même teqalikoo bu ñu fàttee rafetal bu ñu fàttee ah nga ne yese iñ seqoon jigéen tax loo ko ba sa xamal ci lu bon nga waxal ko ko sa borom kër wàcc la loo ko xamal ci lu bon nga nettali ko ko ah bor la boo leb la de bul gaaw a faatu ndax xam naa ne bala ngaa faatu danañ la ko fay da ngay maandu ragal yàlla ñoo doon ànd ci sëy yàlla moo jeexal suñu diggante jeex na lu ngeen bëgg a xam demee ngeen laaj ko ko moom man awma lu may wax ci waxati ci moom la la mas naa dégg mbokk bu wax lu am solo naa dégg mu wax lu am solo mu ne ànd gi ñu jot a ànd li ma jot dal ci moom ci ay njuumte loolu laay jéggalu sama borom comme teqalikoo nañ bëggatuma see yokk benn benn benn loolu ko góor moo ko waxoon xam naa ko jigéen koo xam ne boo nee ko yàgg sa borom kër nanga mu nii boobu yàlla jeexal na ko kon wax ji na ca jeex boobu yàlla jeexal na ko wax ji na ca jeex lii moo jaadu mbokk yi ndaw mu ne ko yonent bi dëgg dëgg neex yàlla waaye amul lu mu ko rey lay jaam xanaa déggoo man la amul dara yonent bi ni ko nee na woor ñaari weer mu ni ko yow xanaa déggoo ma ne la kii ak am nag la paala boo xamante ni moom daa mën a wora ñaari weer yu toftaloo mu ne ko kon nee ko na leel juróom benn fukki miskin mu ne ko moom dara la amut dara la amut ñëw na ci ay riwaaya yonente sa salam daal di wax ñenn ci sax saxaaba yi jox leen ko dàmbay tàndarma nangam am na ci beneen riwaaya yonente bi ni ko kaay jël nangam am na ci beneen riwaaya yonente bi ni joxal ndaw si nangam mu dem saraxel ko borom këram yooyu yëpp ci ay riwaayaat la ñëw kon euh, euh, riwaaya bi ñëw na ci ay wala nettali bi ñëw na ci ay riwaayaat yu bari waaye yu jege yoon tee la riwaay yu jege la am na ci beneen riwaay sax wax dafa wax ni waa ji dafa nisaroon ni ci biir weer koor yi bu nammatee ànd ak soxnaam ànd ak ndeyam am na benn riwaay boo xam noonu la ko indee yooyu yëpp da ngay wax la yoo xam wax dëgg yàlla rafetut jaaduwut baaxut lii nag moom mooy zihaar zihaar ci borom xam-xam fiq yi sunu borom qad li wér te te am moy samia dégg na allahu yàlla qawla allati waxi ndaw sa nga xam ne tujaadiluka mi ngi daggenteeg yow fii zawjiha ci mbirum jëkkëram ji wa tastaki ma ngay jàmbat ila allahi ca yàlla wallahu sunu borom yàlla yasmau mi ngi dégg taxaawurakuma weccante ndi xibaat yi inna allaha su borom yàlla samiun aji dégg la waaye basir aji gis la ku jot ak dégg ku jot ak gis moom sunu borom su borom mu ni alladina ga yooyee nga xam ni yuzahiruuna dañuy zihaar mooy gannaawal wax ni su ma nammee tamit yaag sama gannaaw nday ndax zahr li dax ñu ni zahr parce que mooy gannaaw te ak jur ku koy war ca gannaaw ga ngay war bu dee fas wala mbaam wala nangam moo tax ci lañ jëlee baat ak zahr mooy ndig gannaawal alladina gaa ñi nga xam yu zahiran dañuy gannaawal mooy dañuy zihaar minkum ci yéen min nisaihim ca seeni soxna maa hunna nañu xam ne nekkuñu ummahatihim seeni ndey soxna yi duñ seeni ndey wax ñi nga xam ne su ma la namati sama ndey laa yamale su la namati tim yàlla sama ndey su ma la wodde naa la sama serab la sama serab ndey yaag ndey laa yemale sunu boromu ni maa hunna ummahatihim ñooñu duñ seeni yaay in ummahatuhum seeni yaay dëgg illa allaahi nekkul ludul ña nga xam ni walat nagum ñoo jur yaay di la jur mooy sa yaay wa innagum ñoom nag la yaquluuna ñu ngi wax munkaran lu bon munkaran lu min al qawli ci ay kaddu wa zuura aki nar mooy ay kàcc ndax boo ne ko yaag sama yaay laa yemale yemul comme Euh, sunu borom subhanahu wa taala mu ni ñoom de ñi ngi wax wax joo xam ni munkaran lu bon la min alqawli ci ay wax wa zuura ak li nga xamante ni moom mooy ay nar waaye wa inna allaha sa borom yàlla la afuw ku mën baale la waaye gafuur ku mën a jéggale la moom sunu borom loolu nag saa bu ko sunu wax waxee ci ginnaaw njaaxum mooy wane ni gaaw leen lu bare bare ci ay njaaxum inna allaha gafurun rahim tawabun rahim ah yooyu nga koy gis ci ginnaaw njaaxum yi la muy wane mooy gaaw leen ngeen tuub jëm ci seen borom kon gaa yi nga xam ne dañuy ziyaar seeni soxna nañu yëg ni lu bon lan wax góor mi tey nañ ko dégg at fii nag darsu danañ ci leeral insha allah kemtalaay kattan ziyaar ak i atteem ak yenn ci masaayil yi nga xam ni moo ca aju ziyaar mooy nit ki wax soxnaam su ma la nammee tiim yàlla naa sama ndey sàngee naa la sama sërëb ndey woddee naa la sama sërëb ndey yaag sama ndey laa yemale ah ila axirihi loolu mooy zuhaar ndax nit ki bu nekkoo ko sama rakk ak yaag sama mag yaag sama nangam laa yemale dina yore àtte bi déedéet waaye wax na lu bon wax na lu bon lu tax parce que dañ ñu ak mag ak rakk ak yooyu bokkuñu am nañu ni ahankay sa rak sa mag sa nangam ñooñu nga xam ni daanaka ñoog sa yaay ñoo yem mënu leen a takk boo ko waxee soxna si zihaar lay doon am na ci borom xam-xam ñu wax loolu am na ñu ne déedéet yaay ak maam doog ñoo ci mën a dugg yaay maam su fekkee dafa wax loolu soxnaam ak bu ko waxee su ma la namatee itam yàgg diw laa yamale loola moom du dara du tus yàgg diw fekk diw moom mu beneen beneen waaye la loolu du dara wax nga lu bon rek waaye nag zihaar amagul zihaar arab yi buñ ko waxaan bu yàgg mooy soxna si tas na l'islam nag ñëw ni wane ne loolu tasulub sëy waaye nag jigéen ñi ñuy këll këllee laa bëgg mu dakk moo tax jigéen ñi bu ñu jàngee alquran dëgg xool situation yu crac yi ñu nekkoon l'islam génn leen ci danañ gën a fonkaat seen borom yu bari nag lañ ci mën a tudd su ko defee kàddu yi ñaaw yooyu góor daan ko wax soxnaam te xam ngeen dafa am góor ñoo xam dañoo goree di te dañoo ñaawalaat nit ñi loolu moom am na dëgg la nag jigéen ñi nag moom luy njaaxum moom ñu seen gémmiñ ñi jigéen moom bokk na ci suñu borom ni mu leen mooñaalee moom luy njaaxum rek man nañ kaa wax moo tax gis nga bokk na ci ma gis nga boo jot rek soxna mu wax ba wax loolu daanaka teeyal rek li ko waral mooy jigéen noonu loolu la am aw làmmiñ la am aw man yunassau fi lxilyati wa huwa fi lxisaami gayru mubin aw làmmiñ la am yàlla xam ne ni jigéen mën naa wax ba wax la lu mu wax na laa man na laa wax loo xamante ni subaay mën naa fay taal bi jigéen mën naa wax ak yow wax la loo xam ni mën naa fay taal bi ci kër gi te yàlla xam na ni même moom sax gëmut li muy wax waaye xam nga li ko waral mooy day jéem a jot sa xol day jéem a jot sa xol pour naqaral la léegi nag bu dee góor gu xamut suma gars yi nga xamante ni sawaay da ngay nekk wàcc bees ci takkum soxna jàpp ne affaire yi moom xaabar xaabar rek faaxar faaxar yi koy faj doo soxtal dara da ngay mujj ñàkk fayda comme moom rek parce que xam nga ne bu ñu la fekkee ngay dàgg santeeg moom ngay wax muy wax nga mel ni sa waay jigéen ji xuloog moo xam ca teen ba kilib kéeb da nga amoon dootoo ko amati waaye bokk na ci xikma mooy buy wax nga ne tekk bàyyi ko mu wax su paree nga ràbb genn kàddu goo xamante ni ko tontu bu taxawoon dana toog nga daal di jàll ci say mbir loolu nag koom fiqub ziwaaj moo ko man ziyaar su fekkent ni waa ji daf koo def wax soxnaam su boobaa yii àtte ci lislaam moo ca nar a aju ba ci jëkk mooy wax nga wax ju bon wax nga wax ju ñaaw joo xam ne war nga cee jéggalu sa borom te wax nga loo xam ne war nga cee tuub te it wax nga loo xam ne du dëgg parce du sa yaay ñaareel bi kàddu googu soo ko waxee su ma yaawuduna li ma qaalu ji mooy nga dem ba rëccu comme ni waa ji def bëgg a dellu si day am punition yu la islam di teg punition yu la islam di yooyu yu diis la te metti ba ci jëkk mooy goreel jaam gis nga waa ji su fekkoonte dañuy soxla si yemee naa la ak sama ndey ñu tekki ñaari fan soxna si faatu atte ba jeex na amul zihar ñaari fan soxna si faatu amul zihar yemale naa la ak sama ndey ñu réglé réglé affaire bi mënta réglé wu ñun ñu sëy bi comme ñu tas sëy ba amul zihar yemale naa la ak sama ndey ba noppi ku góor ki faatu am na zihar ku góor ki faatu am na zihar lu tax mu am zihar parce que bor la boo war a fay léegi fi ne da ngaa a fay bor yow léegi ci suñu fii sa kaw la tege bokkul ak bu njëkk ba su boobaa li gën a wér ci wax borom xam-xami mooy bu fekkee alalam man nañ caa génne lu sulus ba ca sulus ba mën nañ caa génne bu dee luñ ko fayalee bu dee bor ndax fa daynullahi axaqu an yuqda su fekkee waa ji dafa amut dafa amut su boobaa wàcc na ko ndax loo amut ci lislaam rek wàcc na la waaye bu dee am nga ko da nga zihaar zihaar ba ca jiitu mooy tahrir raqaba goreel jaam bokk na ci l'islam lim fi fekk te war koo régler mooy jaam xam nga islam dafa ñëw fekk am jaam bare bare bari gis islam bu ñëwoon mu ni seen naanum sàngara mi laa bëgg tay tay tay kut kut da dagg du dagg loolu suñu moo tax defu ko moo tax li ma wax sànq ni islam fekk na fi naanum sàngara ak mu met waaye nan la def soo commencé naan laa taqrabu salaat wa antum sukaara ah bu leen jege julli fekk da ngeen a mandi xam ngeen ni mandi baaxul ah ah ak yeneen ak yeneen ci ay ba ci ñetteel ba mu ni innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsu min amali shaytaan fajtanibuuhu waxtu bàyyi leen ko léegi jeex na fële mu ni fa hal antum muntahuun saxaaba yi ni ko intahayna keroog la naanum sàngara jeex ci ña nga xamante ni yàlla jeexal na ko ci ñoom jaam nag dafa bari lool islam bëgg ko fee jële léegi suñu borom ubbi ay buntu yoo xam ni jaam yi dañ cay jeexee limal leen ma ban ban lu mel ni am ngaa yéemoogul ku rey nit te dayu ko ak lan ànd ak sa soxna ci weeru koor loolu ndax da koy day fekk nit ki daa ànd ak soxnaam ci weeru koor te daa daa wala boog ku ànd ak soxnaam ci weeru koor daa war a fay ku ànd ak soxnaam ci bëccëg weeru koor daa war a wala daa war a goleel jaam wala daa war a nangam wala daa war a lan day war ñaari weer ci goleel jaam sab ko wax ba loolu ak jaamu yàlla boo xamante ne dafa benn finis bi luñ la finee ak ban ak ziyaar ji ñu wax muy ñett wala ñeent ak bari na lool boo xoolee ci alquran wala xadiisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay pétition am na yu bari yoo xam ne dañ koo teg ngir ni képp koo xamante ni moom dafa def nangam na goreel jaam gis nga loolu daa dem ba mu yàgg yàlla nag ni fa waqta xabal aqaba léegi nag mbir yi du dootul xaarati pétition tege ci sa kaw nga doog a goreel jaam wa ma adraka mal aqaba mu ni fakku raqaba goreel jaam su ko defee ça veut dire que gaa jaam yi wàññeeku rek jaam yi wàññeeku su yàggee day dem ba jaam yi day jeex kon gis nga am xekma ci ni ngay doxale lu am solo la su fekkente ni waa ji donte fi ba taxir raqaba la sun borom wax tegu ci mu'mina waaye insha allah bu mu'mina lay doon fa taxrir raqabatin mu'mina ci ku ray bakkan fii tamit taxrir raqabatin mu'mina lay doon lol la borom xam-xam wax ni moy di gën a dëgër sàttunte na góor wala nek jigen wala na nekk ndaw wala nek mag na nek jam dal te nek ko gëm yàlla ndax a ci fa innaha mu'mina kon sart moy mu gëm yàlla su fekkee jaam amul wala waa amul jaam mu woor ñaari weer ñaari weer yi ngay woor fi mu soo ko woor ba ci biir nga daal di dogaat perte nga soo wooroon ba am cinquante sept jours nga xam ne daanaka moom yaa nga ca ca bandaw nga daal di dog perte nga la nga defoon soo wooree ba nga xamante nii tuuti moo ca des nga defaat la nga defoon nag hmm? perte nga ko beneen zihaar moo lay waraat su waajee defee njaaxum googu war a zihaar di préparé woor wóoragul daal di defaat njaaxum la ah ah kii nee na ñaar kii ni benn kii ni ñeent mbaa du ngeen àgg kii ni ñaar kii ni benn kii ni ñeent de su ma wax benn ziar rek koy wax su fekkee nit ki dafa def njaaxum li am na ñu ne su fekkee ci genn bëccëgu weeru koor la ko def benn ziar moo koy war su dee ci weeru koor la su fekkee nekkul ci biir weeru koor mu def ko am na ci borom xam-xam ñu ne ñaari zihaar moo ko war am ñu ne déedéet benn zihaar rek moo ko war ba léegi xanaa jéggalu ci yàlla waaye benn ko war waa ji daa woor bay waaj a àggal ñu ne suba la tabaski te bisub tabaski moom kenn ko woor dafa xaraam lu muy def day continuer woor day perte day doog su paree day doog su paree démarrer waat nu muy def kon ni keneen day perte fuqaraa yi xanaa koor gi da leen a jàpp ah dof bi da ca am dalil ci ni islam moo ko digaloon mu woor te moo ne ko tey bul woor wax na dëgg su wooree ba tey tabaski foofu moom sa sa yoon néew ci yow moom l'essentiel da ngay dog après nga continue waaye bu dee dog boo xam ne yaay coobare ka su boobaa perte nga te da ngay fayaat su fekkente ni waa ji ndaw si moo soo ma namatee tim wa wax xam nga kii la ni naa la sama seef ndey kii ni ko solot naa la sama tuba yi bàyyi kon gis ngeen wax yi ni mu ñaawee léegi ndaw si nag moo wax loolu jëkkër ji ko su ma la namatee tiim tiim sama ndey moo ma ko gënal kii ni ko soo ma namatee tiim sama bàyyi tiim maa ko gënal lu yaate bi kii ne ndaw su ko waxee du ko am ah lu tax du ziyaar te li mu bon ba ni li kii wax du nekk ziyaar te li kii wax la wax te góor ñi jigéen ñi seeni genn wàll lu mu min nisaihim la yàlla wax waxul min azwajihim alladina zahiruna minkunna min azwajihin waxut loolu de yéen jigéen ñi nga xam da ngeen di ziar seen jëkkër waxut loolu loolu kontu daanaka lu bon te ñaaw nga waxoo li war na dara waxoo dara wax lu bon nag te ñaaw waaye kenn du ko compte ak ziar loolu mooy faram-fàcce bi bu fekkente ni waa ji nag dafa dem bay waaja dafa wax ziar ji ba léegi nag summa yahudun amut moom soxlaatul soxna si wala pare na pour wàcc ko wala ila axirihi su boobaa amut zihaar parce que summa yahudun mooy nga bëgg àndaat ak moom léegi nag balaa ngay ànd ak moom da ngaa war a def lii am na ci borom xam-xam yi ñu ni bu dee itaamu sittiina miskinan ko am problème bu la neexee mën nga ànd ak soxna si ba pare doog a def waaye li gën a wér i tahriru raqaba itaamu sittiina miskinan siyaamu shahrin mutaabiayni sañoo ànd ak soxna si fii déposé àtte bi ba pare finition la loolu nag ngir nit ki ci xam ni am na kàddu yoo xam ne kenn du ko wax loolu la suñu borom di wax ni walladina gaa ñi nga xam ni yuzahiruuna dañuy zihaar min nisaihim gis nga de ca seeni soxna kon du jigéen ñi ay zihaar góor ña summa yahuduuna ñu daal di walbatiku li ma qaalu ca lañ waxoon aaye jooju nag mu fassiru ni juwee nañ ci ñii di wëlbatiku gi mooy mu bëgg sa yaat ak moom ñii di wëlbatiku gi mooy mu wax réccu na ñii di wëlbatiku gi mooy mu ne ko léegi nekkatu fase ak wax nañ ci ay wax yu bare bare waaye li gën a dëgër mooy summa yahuduuna li ma qaalu mooy mu regretté ay mu waxoon léegi nag bëgg a ci sëy nag te waxoon na ko wax ju ñaaw ja suñu borom mu ni déedéet fa tahriru raqabatin goreel ab jaam moo war min qabli an yatamassa balaa muy àndaat ak soxna sax daalikum lii ngeen dégg tuwaasuuna bihi ci lañ leen di waar wallahu yàlla bima taamaluuna ci li ngeen def xabiir ku ci dañ kumpale moom sunu boroom moom xam na li ngeen di def kon kàddu yu bon yi nga xam ne góor ñaa ngi koy wax war nañoo ragal yàlla te xam ni munkaran la wa zuura léeg-léeg nga dégg góor waxal jigéen wax ci bona bona bona bona muy ba ñuy nekk ca kaw ga xam naa loolu xamoo ndax taax yi xam nga taax moom daanaka lu moom lu nekk sax mi ngi fi waaye da ngay gis léeg-léeg maanaam lii kaw ga laa ko gisee moo tax ma di ko nekk ci li maanaam da gis jigéen góor wàcc ko wax ci moom kàddu goo xam ne ci amati jëkkër mbaa buy am jëkkër dëkk bi du fa amee jëkkër moom xam nga dëkk ba bokkul ak Dakar dëkk ba daanaka feneen lu fa yeewu balaa jant bi so ñëpp a koy yëg même picc yi sax ko koy yëg bu dee taax yi mel noonu léeg-léeg nga góor wàcc ko wax ci moom wax joo xam ni la hawla wala quwata illa billah góor ñëpp koy seexlu loolu man teg naa ci sama bët dégg ma ko dama kaa gis nga xam ni góor góor bu dégg wax ja seexlu la moom ndaw si loolu wax dëgg yàlla rafetut jaatuwut góor gu goree di góor gu bon mooy def loolu wa kazalika jigéen ji tuumaal borom këram tuuma ju ñaaw sax waaye nag jigéen a gën a neex a tuumaal góor xam nga góor faxasu da ko yomb gis nga la ca fekk ci jigéen ji ci ay musiba fekku ci góor wala moo musiba sa digganteeg sa borom de waaye der bu tax la ca fekk jigéen fekku ci góor ndax góor bu bari day fa faxasu yëlbu rek faxasu noppam dem jigéen a ngi fi da koy taq nga jigéen wax lu bon lu bon a bon na bon a bon nga ne si yaa wax nanga mu ma oh, yow doo yàlla ci li nga mu ne damaa la ko wax sa veut dire kon mooy xam na ne li mu wax du dëgg moom loolu mi ngi am loolu nit ñi nañ ko bàyyi nit ki loo mer mer mer war ngaa maîtrise di xool li ngay wax parce que histoire day nettali de taarix day nettali de sa yaay fi waxoon sa baay fi waxoon xoolal tey nga yëkkati kaddu gu bon gu wax ko sa soxna wala wax ko sa borom kër kaddu gi wasaaroo waa àddina yëpp yëpp ko sa doom màkk nekk nekk imaamu jàkka nag mbaa imaamu jumaa nag imaamu jiiteem réew mbaam dëkk yooyu yu mat a bàyyi xel la ma sa digganteeg sa borom waaye sa sa dund sax daf ci yàq lu bari kon kàddu yooyu mbokk yi dañ ko bàyyi xel suñu borom ne wa qul ya ibadi yaqulu allati hiya ahsan waxal sama jaam ñi ne leen dañuy tànn bu ñuy wax kàddu yu rafet ndax seytaane day ko ci kàddu yi yenn kàddu yi mbokk yi ëpp na yenn kàddu yi ñaaw na dëgg la am na ñoo xam kàddu yi ñu wax sax àgguñ ci zihaar waaye wax dëgg yàlla bon na ah tuumaal sa soxna ci sëy tuumaal sa borom kër naan da doon ànd ak góoru jàmbur nangam nangam surtout nag jamonoy téléphone yii surtout jamonoy téléphone yi lu bare bare bare bare bari te it boobu nañ ci bàyyi xel ni am na loolu yëddu la tey bu fekkee sa borom kër dafa teg téléphone am nga jël téléphone bi di manipuler di xool message yi ca nekk ak yu demee noonu yaa jëkk bàkkaar yow parce que li nga def l'islam da la koy tere mën ngaa yëddu nga fekk ca lu la neexut mën ngaa yëddu nga fekk ca musiba loolu bàkkaar nga digganteem ak borom ñaareel mooy léeg-léeg nit mën na laa sipsone ak kenn diw day nangam diw diw dafa nangam diw ah mbokk yi tuuma day bokk na ci yi waral sunu borom mbugal la fii ci àddina xawis turas góor tuumaal góor dëng ay wayjur daw xare ah fecc kollëre yi bàkkaar bu xaar àllaaxira fii lay jëlee wàlla kon yooyu mbokk yi nañ ci bàyyi xel kàddu yi nañ koy rafetal leneen gis ku mer wax loo xam ne sëñ bi tukkal na dëkk loolu kenn du ko def ak loo manti wax même booy kaf même booy wax dëgg na nga wax la am waaye bul waxal sa borom kër lu amut la ca gën a kéemaane léeg-léeg nga gis koo xamante ni borom këram da koy tuumaal moom it mu tuumaalaat pour bëgg a fay maanaam sa borom kër waxal na la wax di ñaaw yow it nag léegi pour nga mën a fay il faut nga créer beneen affaire te nag gis nga nag sos nag am na ñoo xam ne moom dañ koo man fabriqué am na ñoo xam ni sëñ bi moo tax gis nga ñi nga xam ne yàlla natt na ñuy ay borom yi xam-xam wala ay muslihun di islah def islah zaatil bay ñu war a tey lañ gis nga am na nit ñoo xam ni fabriqué liñ ci man maçon mënu ko ci tabax mën nañoo créer benn affaire fabrique ba nga xam ni yow buñ la ko waxee moom ci ci boo dee góor gu teeyut euh, wala nga nekk góor benn nopp góor benn nopp mooy ko xamante ni moom ku jiikite nopp ba léegi gis nga li gën a bon ci kilifa mooy kilifa gu nekk góor benn nopp gis nga loolu bu ko nit ñi xamee su histoire amee rek dañuy daan jëkk ci yow am na kilifa yoo xam ne am na ko ma mos a gis ko xam noonu la mel dañuy góor benn nopp la bu ko defee dañ naan yi bu soir amee de moom ku jiitu ca nopp ba yaa moom ku jiitu ca nopp ba yaa moom te dëgg la de moom boo jëkk boo ñëwee wax rek yéemu na ca la nga wax gëm ko mu jeex kilifa warul mel noonu ñaareel bi su fekkente ne yaa ngi àtte wax yi na koy déglu bu baax ndax wax ju jub day jub cim xel waaye wax ju dëng lu ko borom jubal jubal jubal day dëng cim xel moo tax sunu borom mu ni gaa yi nga xamante ni ñoom dañuy zihaar ñu dellu ca lañ waxoon fa tahriru raqabatin nañu goreel ab jaam min qabli an yatamassa balaa ñoo àndaat ak seen soxna dalikum lii tuwaazuna bihi moom lañ leen di waare di leen koy yeddee wallahu sa borom yàlla xabiir ku dañ la ci kumpa bi ma ci mboolem li ngeen di def kon nu góorgóorlu ci bunt boobu rafetal kaddu yi rafetal ànd yi mbokk yi ànd da daan am am te kàddu yu ñaaw daal daawul jëpp ànd bi daan am ba teqali koo am te kenn ku ci nekk respecté sa morom jox ko cër saa saa sax nga ànd ak nit ba teqali koog moom geneen góor daal di koy bëgg ñëw ci yow ni la loo xam ci moom loolu mi ngi amat ah. loolu xewi na léegi dafa xewi te loolu daana am góor dana ànd jigéen ak lu leen a texale lu mën a doon nga ñëw ca jëkkëram ju jëkk ja ni ko loo xam ci moom mu ñu la ah moom da wax dëgg yàlla jaamukatu yàlla la ku baax la ku nangam la ku nag te moom nooy jëkkër ji moo teqali koog moom looloo jàpp waaye naa ne tey bu nit teqali koog moom nga dem ca moom naa ko loo xam ci moom bu soobee yàlla bu doon ngorof keroog mu tax dégg nga mbokk mi ni mu wax mu ni boo ko takkee sax mu mer la ah loolu kon dina métti di te wax na dëgg di ak a wax dëgg ci jamonoy salafu saaleh ñaar daanañ ànd kenn ki wàcc soxna si kete takk ko loolu dara fi nii may wax ak yéen benn waaye bu ne ma woon kaay gunge ma damay labati diw ma gunge ko ñu dem labat ko affaire bi sottiwut man moom ndaw sa na ci man li ma wax xam ngeen ko wala leer leer na wala leeru est ce ma wax leer na ndaw si lu ko araamal ci man parce que ñoo ànd ànd la day araama day araama naan maanaam ñun wallahi islam islam bi ñuy dund kenn xam kon islam maanaam maadaama man maa man nga gunge woon moom sayee man moom maa la gunge woon ndaw sama na ci man léegi maa su ma ko takkee luy xew ndax maa war takk ndaw si mbokk na ca Saalum dañuy wax ni sa xarit daa wàcc nga ñëw lekk wàcc mi aoudu billahi min asheytan rajim xoolal mbir yooyu bi gën a garaaw boobu nag mooy nga yabal ma ci ndaw si ni ma demal neel ndaw si nangam nangam labatal ma nga yegg ndaw si ni man bëgguma kooku yow laa boobu moom daanaka mooy tukki la moom fi boo ñëwoon ci ndaw si ni ko ndax nangam nangam ndaw si ni man moom bëgguma kooku yow laa bëgg yow mu xalaatoo wax waaja loola te it xalaatoo takk ndaw sa te nga dara lu aram amagu fi ba léegi dara lu aram amagu fi maanaam masaayil yi mbokk yi faw ñu di ko bàyyi xel faw ñu di ko bàyyi xel mooy dalikum tuwaaduuna bi yàlla mi ngi leen di waar pour ngeen bàyyi xel ndax jàpp naa ni zihaar wax ju bon la wax ju ñaaw waaye teqalikoo warul tax kenn di wax ca moromam lu ñaaw saxaaba yi ñaata ci ay nit ñoo wacc seen soxna keneen ñëw takk te seen biir ñu continuer ànd ma mel na mu doon mel te léegi loolu mun amunta am te loolu war naa mën am suñu boromu ni fa man lam yajid ku amul lu mu goreelee jaam wala jaam fa siyaamu na woor sahrayni ñaari weer mutataabiayni yu toppalante akamet bu weer koor jotee ci ngay xam akamet dinaa woor ñaari weer yu toppalante loolu métti la de mbokk yi punition bu métti la soxna si doo ko laal doo ko jege amatoo ci moom bànneexukaay fii ak sa ñaari weer yi matut gis nga finition yu mel nii ah benn doy na ci xéewal lay doon muy weeru koor waaye su fekkee nit ki dafa wax wax ju bon gi pour wan la la xool ñaari weer yu mat sëkk ñu woorloo ko waa ji ngir benn kàddu bu mu génn ci làmmiñam wax na kàddu gu bon kàddu gu simu kàddu gu salte kaw li nga wax lu bon la wa li nga wax ay nar la ku ko mënul mu ni na woor ñaari weer من قبل أن يتماس بلا موي أجل تسوحنا فمن لم يستطع كمن تورنك تفتيبال تفمك تفمي إلسير تفنانك وهم نغدم كيه بين إلسير كم نكو غاية دفع تنمو ما وار لولو منه وكين سبب غير نخلق يا الله ممخم نلي تبير مني فمن لم يستطع كمن تور نياري وير فإطعام ستين مسكينا na leel juróom-benn fukki miskin leel juróom-benn fukki miskin mooy jox leen luñ mën a lekk ci bis bi ba suur te it waxuñu la nga génne lu mat juróom-benn fukki miskin jox benn waay waxuñu la nga génne lu mën a leel juróom-benn fukki miskin séddale ko ñetti nit waxuñu la nga génne lu mat juróom-benn fukki miskin séddale ko fukki nit juróom-benn fukki miskin yoo xam ni kenn bokk ci ak morom la jox sittiina miskina alquran li muy wax lu leer la bokkul ak ay muddi weeru koor ak ay génne muuram koor ak ay génne asaka ak xeet yooyu nga yëf yëfaan yooyu nga xamante ne da nga koy séddale bokkul ak bii de itaamu sittina miskina leel ba ñu suur sittina juróom-benn fukk yu bokk miskina ñu ñu ko soxla yoxantu bi nga dem tànn ña nga xamante ne da ngay ne ay bor xaa comme ni ko gars yi defee booy génne asaka rek nga ne sa waay yow ameeloon nga ma cent cinquante de dama gën naa jox asaka léegi tiiree naa la génne woo asaka de déedéet fayee ko xabar moom waaye génne wa asaka génne wa asaka de wala gars yi comme ni koy defee moo tax gis nga alquran alquran jot ay kàddu wa aqimu salata wa aatuna waxul akhrijoo génne leen xam nga asaka dañ koy génne benn xadis wala benn aaya doo ko seetlu nga gis mën a axriju génn leen parce que affaire bi génne ko yomb na waaye joxe ko yomb commerçant bi day génne gis ni asaka ji mat na trente millions est ce que xam ngeen am na ñuy génne loolu ak lu ko trente millions farat am na ñu koy génne asaka am na ñu génne sax lu ko léegi trente millions xam nga ni moom neexul a génne léegi xam nga nu muy def da koy génne dugalaat ko ci commencé di ko séddale nag par ay mille francs par ay cinq cent par nangam par ay nangam génne waa asaka de loolu du génne asaka te ñu bari tey noonu la ñuy génne asaka soo demee bàyyi diw ca dëkk ba moom bàyyam moog sama bàyyi ñoo bokk kii yooyu de d' accord bu fekkee ku néew doole la nga di ko jox bi haadigal fajja waaw baax na waaye nag daa fekk ni ko waroon dimbali wala yow yaa tane ci famille bi yaa ngi war a jox nga bëgg koo laxtati koo jaarale ko foofa déedéet da ngay wax lu leer lii azaka la waaye demal nga joxal ma ko bàjjen diw rek nangam nangam noppi bàyyi ci biir ngir mu lëmal affaire yi duñu xam ndax azaka la duñu xam ndax da nga koo dimbali ah, déedéet itaamu sittiina miskinan juróom benn fukki miskin yoo xam ne kenn bokku ci ak morom ma ñoom ngay wut loolu tamit mu leer suñu borom ni dalik li tax yëf yi safee nii li tuminu ngir ngeen gëm billahi ci yàlla wa rasulihi ak ab yonenteem te ay caaxaan yi déedéet déedéet borom xam-xam yi dañuy wax ne bu dee togg la da togg lu doy juróom benn fukki miskin ci misaal tey xam nga ni juróom benn fukki miskin moom wóor na njëral njëral kër njëralu leen moom moom kay da nga wuti mën bu dee lekk ba rek rek lu mat sëkk moom da nga da nga wuti mën a bu soobee dal leen kenn ku ci nekk amul as palaas comme palaas Dakar yi nga xamante su ci ñaari nga mu jeex mat nga jox ko lu mat la jox itaab nga leel nit ki mu ba rek borom lii li ko waral mooy li tu'minu billahi ngir ngeen gëm yàlla ak ab wa tilka nii mu leen ko jàngalee wa tilka nii ngeen ko déggee xududullahi mooy daytali yàlla yi mooy frontière yàlla yi nga xam ne kenn waru koo fëq sunu boroom ni walil kafirina ñeel na yéefar yi azabun alim mbugal mu métti kon ñàkka sàmmanteeg daytali sunu boroom yi ñàkk a sàmmoonteeg li nga xamante ni moom mooy atte yi boo amul saas mën laa dugal ci kéefar ndax la muy wane mooy nanguwoo atte yàlla ak yonenteem te it nag maa kaana li muminin wala mumina ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiyaratu min amrihim bu yàlla ak yonente bi attee pare naa ci amul lii mënuma ko amul lii jafe na amul lii nangam amul lii man giseewuma ko woon nii amul xaarama defee ko ne comme ñun ni ñuy def déedéet da ngay def da ndaw sa defoon ka a ko fàttalik ci suratul ahzab julay bi baabu ni mënumaa am soxna yonent saa sallam waaw man xanaa bu ma tàbbee àjjana du ma am soxna mu ne ko ahan kuy tee am soxna àjjana mu ne ko kon lan moo tax sa gars yi nanguwuñ maa wax may soxna gars yi daal di def wax na wax ju wax ju daal ay ndeysaan dafa gàttoon am ay picc ci kanam gi affaire yi bind bi daal macha allah la quwata illa billah yonent bi ni ko demal kër diw ñu may la soxna mu dem ba yegg ñooñu defe ne dañ leen bee ma yónni day ñaan soxna ñu defe ne yonent bee ñaanal boppam ndekete moom boppam lay ñaanal baa ji def li góor ñi def li góor ñi góor yi tey def xaaral ma waxtaan ak jigéen ñi ba pare loolu moom saa boo ko déggee wala xaaral ma wax ak bàjjenam wala xaaral rek eh, commencé la tiit léeg-léeg ñu wax ko bu baax nag waaye léeg saa buñ ko waxee rek nag yàqu na ndaw sa ba mu ko déggee ci leneen waaw xanaa du yonent bi moo yable ñu ne oxon kay mu ne bu ngeen ma ko mayul ma dem ci yonent bi mu may ma ko ndax xam naa ne du ma mayee ko may sànkoo daal di génn romb leen dem gis nga de nangu àtte yàlla ni mel yonent bi saa sallam daal di ko yàlla yàlla na nga sotti yërmandeeg sutura ci kaw ndaw si te bu àddina naqari mukk ba keroog muy faatu sub alayha almaarufa sabban sabba wala tajal aychaha nakadan nakada yow yàlla lépp luy teraanga yàlla na nga sotti ci kaw ndaw si bu dundam mënta naqari ba mu faatu julay bi daa takk tabbiir comme ni ngeen ko xamee ci histoire ba mu daal di faatu bàyyi ko alal ndaw si nekk diryanke bu mat diryanke ci dëkk bi ponkali saxaaba yëpp dañ ko doon labat ndax barke bi ko yàlla defal moom ndaw si ci sababu nangu ñaanu yonent bi waaye sababu sàmmonteeg àtte yàlla bu yàlla dinañ def nangam mootoo mootoo deeleen deel benn waykatu arab nee na bokk na ci gàcce dëgg bisab dee ñëw nga continuer dund nee na loolu gàcce la bisab dee jot nga continuer di dund nee na loolu gàcce la mooy bu yàlla nee deeleen deel sunu borom mu ni loolu day mooy daytali sunu borom mooy frontière bi fële ji suntul bi dina ñëw benn ba ma yetaadda xududullah faqad zalama nafsa àtte yii nag bokk yi soo gisee ñu ci yee xam talu ni di ko benn bennal donte la ca war lépp mënee su koo leeral que dara su dal sa sëq mooy dañoo am problème ci masala yii masalan zihaar dañ ci am problème li liaan dañ ci am problème liaan mooy lan rëbbonte mooy dama laa bett ak diw kii ni ko waxoo dëgg kii ni ko dama laa bett ak diw mu ne ko waxoo dëgg ñu rëbbonte nan la ñuy répondre hmm. ah waaw hmm. Hmm. déedéet day wax billahi maa ko fekk ak diw billahi maa ko fekk ak diw billahi maa ko fekk ak diw billahi maa ko fekk ak diw juróomeel bi mu ni billahi su fekkee li ma wax amut yàlla na mbugalum yàlla tàbbi sama kaw te bu dee billahi ñeenti yoon dañu naan ko sawaay defal ndànk su waay gàcceeg àddina moo gën a woyof gàcceeg àllaaxira gàcce gu gudd gàcce gu te ngaa xoolaat li ngay wax foofu nag jàpp naa ni ku dul dof buñ la ko waxee di nga xool li ngay wax ndax fii moom ci giñ kese nga yem giñ moom kafaara cay topp ak bàkkaar ba gaaw waaye yàlla na nangam rëbbam yàlla tàgg sama kaw loolu musiba la de ku góor gi tamit def loolu su ko defee su boobaa luy xew dañuy tas sëy bi buñ ko tasee hmm, abadan ci na àddina moom dootuñ takkanteeti xaw ma nag àjjana waaye àddina moom dootuñ takkanteeti après bu ca doom juddoo ah doomu lënt lay doon yaay ja lañ koy askanale waaye kenn du wax doomu njaalo la loolu seen jamono ji nga xam ne xaw may test ADN ngeen am ak seen affaire yooyu nga xamante ni jamono avancé na foofu ñaare goog loolu musiba la mbokk yi loolu ay attee ngi ci war nañ koo xam dañ dëpp ga nag mooy talaax nag moom muy fase nga xamante ni fi mu nekk nii nag moom daanaka jàngalekat yi moo leen jaaxal yarkat yi moo leen jaaxal juge yi moo leen jaaxal defarkat yi moo leen jaaxal daanaka daal talaq moom moo tax suratu talaq saar la wow jàpp naa ni it bu ko nit doon jox war na ko jox lu ko parce que fi moo xew talaq moo xew léegi te it nga bi yëpp yëpp yëpp daanaka problème bu réew mi ñu yaakaar ni mooy gën a dund diine muy Saoudia tey ci ñu gën a am problème ci lii la bokk xawla lu xam ngeen ko wala déet te ñoom sax seeni problème moo gën a garaaw parce que ñun suñuy problème mooy jigéen buñ ko fasee pour mu amaat chance am jëkkër loolu lépp sa facile ci Sénégal waaye seede buñ la wàccee pour nga amaat jëkkër ah daanaka moo ngi yenu teeñ bu toll ni montagne yi waxat sorante wun de am na réew yoo xam loolu mooy seen mbir kon liaan zihaar talaax ak ila ila mooy lan ah mooy am wala bi saalum ngay laaj ila mooy ah dama dégg li nga giñoo ila giñoo la waaye ila mooy koo xam ne dafa mere soxnaam bëgg koo yàq mer ma yóbbee mu dal di giñ wala sax giñatu wane ni moom ah du ko laal du ko jege du sëyeteeg moom du nag maanaam daal coupé yu bare bare bare bari su boobaa luy àtteem sañoo paase ñeenti weer ñeenti weer góor sañ na ko ci fi ne jabaram te it loolu ci sunna la bokk nag fi ne jigéen ñaa ngi nii di dégg fi benn góor bu jékki-jékki woon rek taf xool fële mi ngi def njàngale lislaam waaye jigéen ji fi nekk ni mën naa tukkal àddina bi ki dafa nangam joxatuma lii dafatuma ni te góor gi li muy def am na ci sañ-sañ bokk la ci ni nga yaree soxna si mooy taf ko nga xam ni sëy doo ko def ak moom di nga ko jox mu lekk di nga ko jox mu naan amul kaf amul ree amul lenn loo xamante ni daanaka lu ñu daan bànneexoo la waaye nag bu naree ubbi ñeenti weer kat dañuy téye sa loxo ni la sum waaye dellul gannaaw maa nga wàcc soxna su mu dem gis nga loolu tamit ay attee nga ca fay li ay attee nga ca eddaw ay attee nga ca surtout eddaw nag ndax na bi ñun dañuy attewu ci janvier février mars fekk yooyu xamee su ko ci attewoo hijriya bi la ñuy àtte woo muharram safar rabiul awal ba ca zulhijja beneen bi ci des mooy ci set gi la ñuy sukkandiku wala ci gis baax gi la ñuy sukkandiku beneen problème boobu fii Sénégal da ngay dégg ñu ni ku ëmb kenn du ko fase musiba ngoog bi est-ce que xam nga ni maanaam bu fekkoon dañ koo nar a fase ci ëmb bi fase wuñ ko ñu bàyyi ba mu am doom ñu doo koy fase foofa gën a nekk danger parce que buñ ko fasee ci ëmb bi bu amee doom rek idée bi jeex ndaw si buñ ko xasee woon jeudi jeudi bi dellu saat bu am doom sa jeex na bu gisee jëkkër góor na waaye gis buñ ko bàyyee ba am doom ñu doog koy fase fekk moom daa ci jigéen ñi nga xam ni buy nàmpal du gis règle gis nga kooku nar naa toog te loolu la lan la koy coûter ci ay mettit mooy yéegoo ca fa wàccoo ci suuf da ngaa benkalu yéegoo benn doo jabar waaje te it keneen mënagu laa takk parce que yaa ngi ci ënd bi day nar yàgg ñun nag aada ñu ne jigéen bu nangamee kenn du ko fasee kenn du ko nangam ila axiri xam naa boo demee lañ cay toppal mooy xamuñ ko xam góor lay am wala déet te buñ la ne da a da loolu mooy jigéen maanaam Sénégal ngay fekk ay atte yoo xam ne doo xam lii ban ci la wàcc yii nag ay masala yoo xam ne mat naa jàng nag mbokk yi lan laa jublu ci détail bii ma doon def nii ak jawla bii may def jubluwaay bi mooy ay nit ñi ngi tas ay sëy jaambur te sëy ya tasu ci lislaam te musiba ju ak rëbbam yàlla ma nga ca loola ay nit fi ne ñi ngi ànd di jëkkër ak jabar te sëy ba tasoon na daawaataa di jéeg te am nañ ay doom sax ci diggante bi kenn xamul doomi doomi lan la ñuy doon kon beneen bi ci des mooy lekk lekk nit jaaxle laaj ak borom xam-xam wala ku ñuy askanale xam-xam mu wax ko at fekk lam ko wax di noonu ndaw sa jàpp ni loola moom moom wax yéen mina samaay daal di koy jëf fekk njaaxum am ak yeneen ak yeneen boo tax at yi mbokk yi dañ ko war a xam sunu borom mu ni kon lii mooy at yi sunu borom walil kafirina adabun alim sunu borom mu ni inna alladina gaa ñi nga xam ni yuhadduna allaha wa rasulah dañuy diingat yàlla akub yonenteem دي di wërwërlonteeg ñoom ci foye ay njàngaleem ci atte bi wala yeneen sunu borom ni kubitu ñooñu kutus nañ yàqu nañ alku nañ kama kubita comme ni mu alkoo woon alladina min qablihim ñi leen jiitu woon te doon def li ñuy def wa qad te fekk wàcce nañ yàlla ayatin bayinat ayu leer walil kafirina ñeel na yéefar yi adabun alim mbugal mu méttee méttee métti te kii muhaadatullahi wa rasula ci buntu boobu lay mbugal moom sunu borom mu ni yawma bisab keroog bis la boo xam ni yabaatuhum allahu jamian ñoom ñëpp la yàlla dekkal ñi doon théâtre alquran ak ñi ko doon foyeek ñi doon foyee nodd ak ñi doon foyee julleeg ah gis ngeen xeeti fo yooyu da ngay gis kuy julli ba ci digg bi ci théâtre julli ba ci digg bi téléphone am sonné mu daal di dagg julli gi di wuyu téléphone lu ne lu ne yaa ngi koy gis di nodd ba ci digg ba arrêté nodd gi fekk xeetu saboote bu nekk dañ koy def xeeti saboote yi bokk na ci yi nga xam ni man naa jural nit ki azabun muhin mbugal mu doyatee doyate te it nag seetlu ñi ko def ñëpp xanaa ñu tuub qabla al mamaat xanaa ñu tuub qabla al mamaat moo xam xeeti caaxaan yi ñuy def ak bokkaale yàlla yeeg yëpp solo ah daanaka néew te li gën a kéemaane mooy néew na koo ci gis mu tuub qabla al mamaat yaakaar naa lu néew ngeen koy dégg. xanaa ci mbër yu mag ya dégg mbër moo xam ne day am ful ful la ju doyee def déclaration bu leer mën la di tuub naa bàyyi naa lii mu jeex loolu moom yaakaar lu ma toog yaakaar lu na lool te loolu la gis ci war a def tey dafa am yoo xamante ni booy tuub nag day leer de maanaam amul da nga jëkk maanaam gis nga nekk star loolu moo ko tax a garaaw maanaam am na yenn xeet yoo xam boo ko xasee doon da ngay jékki da nga ni génn naa réew mi dem naa tuub naa déedéet loolu génne wala te de lënt mi nekk ci nit ñi faw nga génne ko ba pare waxuñu la nag fu la dugg fa wax waaye defal déclaration mu leer sa jaadu wàcc nit ñi xam ña lëntoon lënt ma dañ te loola ñu ba ñuy tuub sax daanaka duñ ko def da ngay jékki-jékki dégg nga di diw di bàyyi na nangam diw di nangam na nangam mu jeex suñu borom ni yow ma bi su keroog muy àllaaxira yab'atukum allahu su suñu borom dana leen dekkal ñoom ñëpp fa yunabbiuhum bi ma amilu suñu borom xabaari leen mboolem lañ doon def mokki alquran jeeg théâtre koog ji ko foyeeg foye julleeg foye nodd ak caaxaanee jigéen ñeeg ah foye atte yàlla yeeg takklop ñeenti soxnaak ah ila axiri ci li yàlla yi jox ay doomu aadama ahsaahu llahu yàlla bu nit lépp lañ note woon ahsaahu na ko wattu na ko allahu yàlla wa nasuuhu ñoom fàtte nañ ko ndax doomu aadama daa gaaw a yaa ngi fàttaliku 1900 nangam mu ni loolu man fàtte naa ko ñu ne ko keroog ci nga defoon nangam yaa ngi fàttaliku hôtel tel ci nga defoon nangam yaa ngi fàttaliku yàgg bay diw bi ngeen taxaw ci kanamu tribunal bi keroog ci nga defoon nangam ahsaahu llahu yàlla noté na lépp malaaka yi noté nañ ko nasuuhu fàtte nañ ko yàlla mu ne ala kulli shay'in shahid sunu borom yàlla moom fekkee na mooy aji teewe la ci lépp loo xam ne lu xew la aayaat yi nga xam ne mooy wax ci zihaar cheikh bu mag bii di al allaama cheikh nasir ibni abdirahman saadi bi mu tafsiree aaya ba nag daf ci indi ay lataif ak ay fawaid ay njàngale yu am solo bokk na ci yi nga xamante ni leeral na ko ca mooy zihaar mbirum góor la waaye du mbirum jigéen góor moo naan soxnaam ziar naa la àtte bi wadd waaye bu dee jigéen déedéet la bi ma koy joxeel mooy jigéen bu ne woon soxnaam sam jëkkëram fase naa la loolu mooy la xam nga loolu moom daanaka xanaa xanaa góor gu sëy waaw loolu loolu mën naa nekk nag jigéen ah waaw fase na ko fase naa la fase gi bi moo tax góor du sëy góor moom du sëy mukk mukk mukk olof bi dañuy wax ne góor boo bëggee jàmm dul sëy bul sëy te boo bañ a mënee bañ a dëkk ak say goro moo gën bul sëy te boo mën a bañ a dëkk say goro moo gën ndax nag yëf yëfaana nga foofu yoo xam ne borom xel yoo xam na bokk na ci mooy zihar ci boppam nit ki ki mu koy def mooy ki nekk soxnaam ki ngay labat takk goo ko ah wala soxna sa nga fase woon ba wala koo xam ne doo jëkkëram nga naa ko loola moom daanaka waxi caaxaan kese la ndax min nisaihim na bokk na ci ziyaar képp ku ko def war nga ci yàlla parce wax nga lu bon wax nga lu dul dëgg bokk na ci yim ci indi nag nga xam ne ñun dañ koy faral di def mooy kon jaatuwut nit ki di wooyee soxnaam sama yaay sama yaay ñun nag léegi bëgg a neexal tey day tax lu ne ngay dégg waaw yooyu mag déedéet xëy na nag yi jëlee si bébé moom comme loolu loolu du naa leeral bu baax waa dinaa leeral bu baax kay mu soobee yàlla léegi loolu leeraloon naa ko xanaa leeralaat waaye loolu mosoon naa ko fi wax ay jamono bi ñu tax a jóg ci jëkke mooy sama yaay yow moom sama yaay laa la def léeg-léeg nga dégg góor gu bëgg a neexal yow moom yaay sama yaay parce que yaa ma yoonu da koy tere cheikh bi nee na yukrahu lirajuli an yunaadi zawjatahu wa yad'uka bismi maharimika qawliki ya ummi sa yaay sama yaay yow yaa ma féete fépp fi ne yaay laa lay xoolee est ce que xam nga ne na ñi muus ñi ñun fi nekk nii suñu jigéen ñu yeewu ñi ñi nga xam ne ay xëba naqata lañ fi ne koo ci wax loolu rek jàpp na ni yegg na ci jamboxtal ga waaye jigéen ju mën a sëy dëgg jigéeni sëykat boo ne ko yaag sama yaay laa yemale day bañ xam nga lu ko waral mooy yaag sama yaay laa yemale rek ay frontières yu yàq sëy mi ngi commencé ñëw maa la ko wax loolu ñi ko xam xam nañ ko moo tax jigéen ñi mën a sëy dëgg duñ ko nangu kon baat boobu moom bëgg a neexal sa soxna war a tax nga teg léegi nag mbokk mi ndax yeneen yi wax leneen nag yéen a ko xam bu fekkee la ngay wax dëgg la te neexal nga ci jublu ah dagan na di waaye bàyyil xel lii may bëgg a wax bàyyil xel lii may bëgg a wax bu fekkee jigéen a koy wax borom këram mu amul problème amul problème parce que mën naa créer ay baat te fekk na nekk dëgg rek kam ndax dara newu ci waaye bu dee yaa koy wax soxna si nag boo amee benn am nga problème boo amee loolu benn am nga problème boo amee benn problème bi mooy sañoo ko koy wax moom kese bàyyi ñu ci des te boo ko waxee moom kene kese andi nga njaaxum boo waxee kii bii wax kële bu ko dàq andi nga am na koy fatwa ci ginnaa de buñ sooy mënee wutal tur ñoom ñëpp yow xanaa masala mi daa fekk gars di ko dund seen biir kër yi yu mat a bàyyi xel su fekkente ni yaa ngi wax surtout nag bu fekkee yoro ko beneen teel de léeg nga gis koo xam ne benn rek la yore su mooy sukk jémbalu loolu wóorut de bis boo sukkee jémbalu di jàng ba mu yàgg nga gis sëriñ bu dàq jàngale sa sëriñ bii de di nga am jafe-jafe de moo tax looy def am ti équilibre yamal yamaleel waba al mizan yamale ko baat yi lay wax nag moom mooy baat yi mag ngi doon wax démb yàgg naa leen koo nekk li ay sama ndijaay ak sama allaaji beek sama njaatige beeg sama sang beeg sama sëriñ beeg sama nangam jeeg xeeti baat yooyu nga xam ne dañ ko daan neexalaatee loolu moom ku woo ay maire yi juróom benn fukki at yeeg ñoom seen ñoom moom xam nañ loolu bu wér ci loolu nag te li gën a mooy seet leen li may wax du wolofe de yëg kaw kewe yi moo gën a gaaw a àgg ci xol kayi tubaab yi lii ma wax nii nii nii bu ngeen jógee seetlu leen ko gis nga baat yu kaw kawe yooyu nga xam ne moo méngoog sa sa bii a borom xam-xam yi gëstu ci wàllu euh, nu mu tuddati askan ak nu ñuy dundeek nu ñuy defareek famille dañuy wax ni li méngoog askan wi ngay dund ak seen culture loolu moo gën a gaaw a jàpp ci joxe moo gën a gaaw a jël ci jël te nga jël culture jàmbur. waaw waaw waaw. waaw gis nga léegi léegi orma jooju orma jooju mbokk mi wax. même orma ji mooy ànd ak ne xalaate rek parce que jàpp na ne ki ngeen ah ne sama allah ji ah la chaque année allah ji kat wax dëgg yàlla moo gën leneen ah sama sëriñ bi sama allah ji bi sama njaatige li sama sang bi sama kilifa gi ah mu ngi noonu genre baat yooyu ak yeneen yi nga xamante ni ñeneen ñoo ko xam waaye baat yi nga xam moom la ñuy wax nag mu xoolal jël culture tubaab leneen lu ca mën ci am na fekk la ngay wax du lu bon na la ngay wax na di dëgg na fekkit na nga ci sóoraale maandu te gi ma wax ñett yëf yii na am kon di wooyee sa soxna sa turu yaay wala yaay sama yaay wala nangam déedéet loolu moom xëy na nag nit ki nan ko yow de taxawee nga taxawaayu yaay ak yu demee noonu nga xamante ni kàddu gi àggul fële xëy na loolu moo gën a oyof boobu benn la ci masala yi nga xam mat naa bàyyi xel naam mu ne ndax soxna yi wax seen borom kër bébé ah soxna borom kër du bébé ba mu wax dëgg yàlla waaw du bébé de du bébé ndax moom ak lu mën a am nag ak lu mën a xew nag moom du bébé bu soobee yàlla waaw kee la mu wax dégg leen ko la wax am na baat bu kee wax noonu du ma si jaar waaye ak li kee wax ala kullin baat yooyu ñuy wax daal bàyyi leen ci xel ni am na ci baat yoo xam moom jot sax parce que loolu mënta nekk am na baat yoo xam ne neexal la ci nit ki jublu mën naa nekk waaye bàyyil xel ñetti sart yii ma la ci tëral surtout nag la ca jig ku ku jigéen jigu ca ku góor loolu tamit nan ci bàyyi xel bokk na ci yi nga xamante nii moom mooy jàngale yi nga xamante nii moo ci am diisal gin ko diisal goreel jaam dafa diis woor gën ko diis leer ñetti mis juróom benn fukki miskin tamit metti loola ci poos lay génnee te jàpp naa ni lu méttee metti la kon bunt yi ñu bàyyi ci xel nga xamante ni léeg-léeg sharia ci boppam dafay ñëw kul sàmmal jigéen honneur waaye day ñëw pour bëgg ku respecté jigéen am yoo xam ni boo ko defee daanaka l'islam tege ci sa kaw am na loo xam ne boo ko waxee soxna suñu teqay laagam abadan am na loo xam ne boo ko waxee ñu pine la am na loo xam ne boo ko waxee yar yari l'islam dal ci sa kaw genre yu demee noonu yooyu l'islam da koy leeral kon ñu bàyyi xel ni dëgg la lislaam dafa ñëw fekk ci ab société buy dundal ak seeni aada islam day ñëw bokk ci biir aada ya waaye day am yu mu fay bàyyi ak yu muy set di sànni yii nag xàmmee lu am solo la li may jeexalee mooy jël giñ ñu jël culture tubaab wala culture yéefar sax laay wax ñaari danger da nekk bi ci njëkk mooy yonent bi dane woon di ngeen topp suna yi gaa yi leen jiitu woon jéego ci kaw jéego ba bu ndoxee duggee ci paxu mbëtt ngeen dugg fa ànd ak ñoom fi ne nii ña ngi pax ma ñu ngi ne dagaj ànd ak ñoom lii xew ci mariage yeeg yërey mariage yu weex yeeg yooyu yëpp ci la dugg incha allah finance yeeg seen yooyu yëpp ci la dugg ak yeneen ak yeneen ak yeneen tubaab yi lee lañuy ñuy def aada ji ñoom fii lii la ñuy def ñeneen dañuy def leneen ñeneen def leneen waaye lu mën a doon xoolal la ca lislaam nangu nga jël ko ndax lislaam ñëwul pour dàq leen yii la yu mat a bàyyi xel la ñàkk koo bàyyi xel nag yan musiba la la mën a jural musiba yi mooy doomu aadama mën naa góorgóorlu ci diineem waaye yàqee ko benn mbir bu ñàkk solo lu ñàkk solo rek daal di koy yàqal diineem te loolu jàpp naa ne ku ne war na koo moytandiku nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala an yashraha sudurana wa yunawwira qulubana وأن يغفر لنا ويرحمنا وإذا أراد بعباده فتنة فليقبض يقبضنا إليه غير مفتونين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وزد وأنعم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد